waaw sama gaay yi lan moo tax ma bëgg yéen ñëpp ngeen créer seen compte Sunubet comprendre ngeen xool leen deux cent trente cinq mille te daal euh, vidéo bële bi ma koy def rek su euh, vidéo bale bi ma koy def euh, xam nga loolu moo si nekkoon peut-être ngeen dem seetaan ko waaw comprendre ngeen lii sax wanoon naa leen ko si donc gis ngeen lii mois bi passé la léegi dama leen di def retrait bi seen kanam am na ñoo xam dañ ma doon laajte nan la ñuy defee retrait waaw pour ngeen def retrait nag exemple bu leen ñëwee comme ça bu melee nii xam nga mooy nekk fii fee fekkee ni fii nii zéro franc moo fi nekk doo leen mën a def retrait même bu fekkee da ngeen a bëgg def retrait du jàll parce que amoo leen xaalis comprendre ngeen da ngeen def retrait da ñëw moo compte fi bind moo compte fi bu fekkee da ngeen a bëgg def déposé fi ngeen di ñëw fekkee retrait fi ngeen di ñëw fi ñu retrait da ngeen di ñëw xoolal Wave a ngi ni, Wizall a ngi ni, Orange Money a ngi ni, Free Money a ngi ni, donc dangay ñëw Wave comme ça dangay def montant bi nga bëgg retirer léegi damay def montant bi comprendre ngeen gis ngeen donc damay def valider di ko du mat deux minutes sax di ngeen gis di ngeen gis lii bi di ngeen gis notification bi donc gis ngeen notification bi di ngeen ko gis léegi waa gaay kom ni ngeen ko gisee ni retrait validé 235 gis ngeen 7h52 banaa 7h53 comprendre ngeen moo nekk nii donc diñu patienté tuuti bu ñëwee naa leen ko woon voilà sama gaay gis ngeen 200 euh, moo nekk nii lii bi ñëw na voici euh, vous avez reçu 235 000 gis ngeen moo nekk nii gaay gis ngeen ñëw na mooy nii cent bi nii moo mooy dalal na sunu bet 235 gis ngeen 752 waaw pur yeen yu bëgg lien bi nak mën ngeen ma def ci sowa ngeen cliquer ci lien youtube bi.